saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Papa Sow ak écurie bu bees ba mu taxawal ak assemblée générale ba mu doon amal démb ci unité 19 lancement en fanfare hier Papa Sow taxawal na écurie bu bees lu bees ci jëmm bees ci tur loolee la Papa Sow bu njëkk dañ doon gis écurie sàngam wala école de lutte di waaye Papa Sow tur bu bees tàq la andi ci làmb jàmbaar wrestling académie la écurie ba di wuyoo bile académie romb na écurie romb na école de lutte waaye boobee su bënn saañ ba réer la woon champion ya nekk ca Parcelles Assainies ñan ca gisul bariwut ñu doore ko ci ancien gloire yi nga xam ne lu ne def nañ ko ci làmb ko ci mel ni Manga di daam di franc di tafa Pythagore yépp teew nañ ca bés ba muy batika di Ousa Sow numéro 2 ñooñu ñoo xewle woon gis nañ fa Basirou Babou gis fa Assane Ndiaye promoteur gis fa Amadou Mbaye gis fa Aline Dione Pape Mbaye Khadim Gadiag ak Biram Ñing ku ci mel ni Ibou Diouf ba xam ne ña fa nekk ndax gis nañ fa Balla Diouf lay njomboor Lato Sagna ak ancien bi ñuy wax Serigne Ndiaye ak Djibril Kanji bu dee Cheikh Ndiaye moom mooy wéy di nekk manager Papa ñu ne ko Papa foo jëm ak waa Fass Balla bu Fass ancien leader Serigne Ndiaye bu Fass Cheikh Ndiaye bu Fass ñooñu ñëpp rongati nga leen mu ne bu ma toppee waa Fass danañ jeex ku ma fa bëgg a mën naa la faa décrocher waaye man Papa Sow ko def ndax Wrestling loolee moo nekk suñu ambition te danañ ca teg tànk bu dee Balla Diouf ca def gañ ko def kot moom la mu xamle mooy damay fayab bor bor ba ma Ousa lebaloon laay fay lu ne Ousa defal na ma ko ci làmb lu ne jàngal na ma ko ci làmb seen kër laa doon préparé di bëre mbapat loolee moo tax tey buñ ma falee kot danaa ci jàpp danaa leen jàppale bu dee Modou Lo roi des arènes moom ñaan na ngir mu bokk ci écurie yi gën a mag rax ca doole xam le ne Sow soow ak suukar la yëngal naan wala yëngal tuur fa mu jeexale mooy na parcelle gépp jàppale Papa Sow avril mu daan Siteu jël bu rëy ka daan jël bu rëy démb ca Bargny mooy rëm bu yëmbal mbooloo démb la woon ca Bargny rëm woon boppam lastandeer bu ñàkku rab bu dee samedi ca arène nationale caatu ngéwél moo daan fils de Zallo ci 3 minutes 50 bu rythme neex fils de Zallo dem ñaari yoon ardo daal mujjee daanu bu dee xadaafi bu joof yor détonateur mooy détonateur bi mooy combat bi ci njëkk a taxaw mooy combat bi ci nar njëkk am te mooy ubbi baal bi Abdou Diouf moom la tuddee la soog double XL Abdou defet ba ca Forza la bëgg raxas ba mu set wecc moom Gris 2 ya mu defoon ca rëg-rëg la bëgg dindi ba mu set wecc Modou Lo Ama Baldé la tuddee la consécration bi le ca fin de saison ba la jëm le 26 juillet Bombardier Eumeu sur le point d'être bouclé le combat léegi ak le càppaacoli taxaw ci saison bi Tapha Tine Gris Bordeaux en ligne de mire am na yeneen combat yu amateurs yi bëgg di ko waxtaane rëg-rëg Malick Niang amateurs yi bëgg nañu ko Yékini Senior Sa waxi noppi Gris Bordeaux Tapha loolu derby Médina la loolee moo waral journal ba ne lamb ja sajji na ndax lañ fi tudd yépp a neex dañ koy jeexaleeg arène Adrien Senghor ak treizième journée ba démb duudu ñaan Jilas production moo fa woote woon drapeau mbay ak luum un la